jigéen ñi wërul yi xale yi am moins de cinq ans dañ leen koy may gratis Sénégal wax dëgg fa la am na ay partenaires yu koy jàppale ci moustiquaire yi moustiquaire warta jafe ci réew mi ñun ñetti at yu ne à partir de 2012 ba léegi plus de trente millions de moustiquaires wax naa ne mën na dugg dugg na ci réew mi chaque année l'année dernière séddale nañ juróom-ñetti millions ci ay moustiquaires am na lu ñuy wax routine c'est-à-dire que chaque fois nga dem ci benn poste de santé wala centre de santé boo nekkee jigéen gu warul dañ la ko war a jox gratuitement boo amee xale boo xam ne amul juróomi at dañ la ko war a jox je pense qu'il faut qu'on ait un, numéro vert pour que les gens qui se plaignent qui vont dans un district sanitaire ou euh, et que par exemple les gens leur dire que on leur vend à 1000 francs ou 2000 francs qu'ils puissent le signaler et qu'on puisse riposter automatiquement